nguur maanaam si parti bi ma bokkoon muy alliance pour la république mhm. muy bennoo bokk yaakaar bari na ñoo xam ne aussi daf nañu naka sa nu dul noonu ñu leen doon joxoñ baaraamu tuuma mhm. ñoom dañ doon taxaw opposition naan ñii dañuy sàcc waa léegi ñun ñooñu nga doon sàcc nañ doon wax nii ay sàcc lañ nañ génnee lañ doon sàcc mhm. parce que nag aussi man si par si parti laa bokk taxaw terewul nag aussi ma taxaw ne voilà li ñu doon def yëpp baax na bëgg a nekk avocat tout mhm. dañoo taxawoon ne gars yi dañu sàcc. am na dañu doon luubal. Mhm. mais nañu wax ñu doon sàcc si APR. muy reddition ñu génne leen ñu xaalis. muy reddition des comptes yu Sali Joseph Macky président sortant bu fekkee ne dafa am ay luubal ko doon tuumal ñoom ñu ne yor nañ seen dossier yu clair. nangam nangam. il est temps ñu génne loolu yëpp si table bi. les Sénégalais ont besoin de savoir. très bien Ibrahima Pouye sur la question oui. Euh, d' abord. Mm. dañuy ñaanal le président comme ni ko ñëpp waxee. Ah. Mm-hmm. nous avons l' obligation c' une question introductive ah. ñu bañ a aussi de prier pour que président Bassirou Diomaye Faye réussir. comme ni ko ñëpp di waxee. te heure bu ñuy tàmbalee ñu ko war di tàmbalee. Mm-hmm. mais dafa am ñetti baat yu may dégg yoo xam ne fan yëpp bëgg ñëw ci xelu Sénégalais yi. Mm-hmm. y' a moo mot rupture. y' a le mot changement. ñaar yooyu laay njëkki. quand on parle de rupture. mooy li fi nekkoon lépp dañ koy recommencer à zéro. gas par suul. peut-être on tend vers waaw mais. parce que n'oublie pas qu'on a un gouvernement de rupture. c'est mhm. le slogan du <laughs> du premier gouvernement. waaw effectivement. Mhm. rupture boobu baat la boo xam ne Sénégal yu bari ni ñu ko jàppee mooy li fi nekkoon baaxul dañ koy retourner à zéro gas par suul lu bees. la woon woon ni. la woon woon ni. te ci biir la woon woon ni googu dana mën a dana jafe parce que on dit que l' état continuité. kon ñu jàpp ne rupture boobu nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye Faye di woote ak son premier ministre nañ jàpp ne loolu mënul nekk parce que la continuité de l' moom moo permettre tey ñuy wax barki Dembo Ndiaye la directeur bu banque mondiale dem dafa fa mu recevoir ko yaa ko wax léegi n'est-ce pas. Hmm. mën na am benn cause mën na am moom lañu bëggoon def premier ministre ñu changé ko. loolu lépp ay raison la. Euh, d'accord mais n'empêche recevoir na directeur banque mondiale. te ah ñoom dénigré nañ banque mondiale système. Mhm. de financement bi muy am ak Sénégal. Mhm. nga jóge ci loolu barki dem maa ngi dégg FMI mu ngi waaj a plus de trois cent et quelques milliards. moo xam continuité la mais xeexoon nañ système de financement bi FMI di financer Sénégal kon je crois que rupture buy am dañoo war a jëkk a kaseelu direct arrêté ko. Mhm. ñu ñëw ci benn mbir ñuy wax système. ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom te xam ñu luy système je toujours dit que système état mm-hmm. le système ce n'est rien d'autre que l'état état bu ñu ko wax texte la loi ak ay règles et képp ko xam ne ñëw nga fi lenn ngay mën def mooy def ay réformes yu profondes mm. mais teewul da ngay continuer système bi nga xam ne mooy état da ngay ancré wu ci biir système muy état kon système boobu tey naka lañ mën a orienter sénégalais yi boo ñu xam ne système bii ñuy doxal dana wuteeg système bi fi nekkoon te état mooy système. Mhm. te c'est les hommes qui incarnent le système. et d'habitude dañuy wax naan ñoom système bi ñuy wax du ay nit mais système nit la parce que loi yi règles yi ak taxes yi ay nit a ko réfléchir. Mhm. xalaat ko bind ko accès ko teg ko kon ñoom dañuy doxal lool. Mhm. mais boo ñëwee ci cadre bi nga xam moom lay gën a insister gën cee taxaw mooy le mot changement man je crois que changement boobu moo gën a am solo. par rapport ci li nga xam ne moom lañ bëgg a doxalee réew mi changement mooy di fi nekkoon loo xam ne baaxut. santut yàlla bokk na ci liy dellu réew mi ginnaaw ñu éradiquer ko ba mu si changement mooy li nga xam ne baax na te nekk fi ñu defal ko renforcement de capacité. Mhm. def ko ay priorité parce que njëriñ la ci askan bi mhm. moo tax trois france trois mots yi bu ci nekk laaj na méditation bu profond. Mhm. parce que ab réew lañ yor. réew moo xam ne du pensée unique moo koy dox réew moo xamante ne ba ngay nekk ci opposition da nga doon ŋaañi di critiquer li baaxul léeg-léeg nga jël li baax sax critiquer ko kon booy critiquer di opposé wu ba nekk au pouvoir warutoo yor une communication d' opposition hmm. te li ma gis tey fii dafa mel ni si une communication d' opposition moo continuer di véhiculer wu avec le parti au pouvoir actuel je prends par rapport ak passation de service yi. est-ce que mënul ko muñal par hasard parce que j'ai entendu une analyse politique dire que transition bi day xaw a métti parce que boo amee. c'est normal voilà non non ak noo taxawee ci opposition bi boo ñëwee ci régime bu bees nekk au pouvoir. effectivement transition boobu dafay xaw a dafay xaw a mais non c'est pas une excuse. c'est un régime qui est au pouvoir. et que et que bi nga xamante ni askan wi ñu ngi xaar ci ñoom. gis résultat c'est normal mais par force Mmh. mën ta ñàkk mmh. kenn mmh. évalue wu leen personne n'évalue le pouvoir actuel parce que tàmbalee guñ ba leen di évaluer mais dañuy joxe ay xalaat parce que bu ñu toogee ci ay jotaay c'est comme ça qu'on discute des faits yi ngeen xam ne mooy doxal Sénégal par rapport ak passation de ministre de service yi ci ministre yi effet de communication laa ci gis boo xam ne moo gën a nekk buzz par rapport à l'orientation des ministres entre parenthèses hormis le ministre des finance bi wax naan Sénégal fi mu jëm fii ak fan yu néew. dinañ nekk situation bu compliquée. c'est notre premier point. donc donc loolu effet de communication la boo xam ne tey ñenn di parti wu Sénégalais yi accepté nañ de communication bi. Mhm. ñenn ñi accepté wuñ ko parce que vous l'avez tantôt dit par rapport au ministre de la communication. Mhm. qui est censé communiquer avec le peuple. parce que tey damay wax naan ñoom arme bi ñu gën a am. bi leen di gën a jaxasoo ak sénégalais yi mooy ñu gën a jaxasoo ak sénégalais mooy la communication. Mm-hmm. un gouvernement bu demee ba am benn écart de communication. Mm. ak sa population. Mm. la problème de commencé dikk. bonjour les pauvres et je je vois que écart de communication boobu mu ngi commencé dikk. peut-être qu'ils ont qu'ils vont rectifier hein. et non c'est normal xam nga mais école lañ ne. et c'est tout le et c'est le mal qu'on leur souhaite. mais Seydina Mohamed. àdduna ba ba ñuy dugg ci bàmmel. dañuy rectifier. njàng la. nul ne détient le monopole du savoir. Mhm. mais il faut qu'ils essaient de revoir l'effet de communication bi nga xam ne moom la ñuy bëgg jox Sénégalais yi pour ñu consommer ko mais que ça soit une communication positive rassurante une communication élevée bii tax tey niveau de débat yi di élevé ba aspiration bi ñuy xaar ci ñoom ak attente yi nekk attente yoo xam ne ce sera des lendemains prometteurs et meilleurs. mais boo déclenché rek ne demain. Sénégal mën naa nekk ci situation yu compliquée. Mhm. war ngaa joxe orientation yu leer nañ. ba Sénégal yi mhm. jël seen matuwaay. c'est ça waajal seen bopp xam fi ñu jëm ndax bu fekkee daan na lu compliqué ku nekk xam na ngay doxale pour ëllëg li ci des nag mooy la sensibilisation à l'endroit des citoyens sénégalais et que góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor ñi yegg fa ñu jëm tey muy pouvoir que muy opposition nous sommes tous des citoyens républicains ñu bokk drapeau Sénégal vert jaune rouge ñun ñëpp nañ jàppante loxo. comme muy le pouvoir que muy l'opposition ñu jéem a xool naka la ñu ba relever le défi bi nga xam ne suñu borom moom la dénk Bassirou Diomaye Faye encore une fois de plus on a un président de la République élu par le peuple sénégalais et on a un président de la République boo xam ne moom mooy rendre compte le peuple sénégalais décision bu munti jël que ñu influencé ko que ñu wañ loxoom wala ñu def loo ko ba mu def na jàpp ne moom à son âme et conscience Mm-hmm. il rendra peuple. c'est ça compte au peuple sénégalais. alors mais ce ne sera pas. très bien benn contrat di ba am ne sera euh, euh, euh, ce sera collectif. très bien donc yàlla jàppale jàppale sénégalais ñu. amiin alors Thierno les nouvelles autorités.